hayrul wara mbindu maas mooy ramu jam yaa lay lay la la illa la limaamu mooy sunu yonent xayrul waraa njiindu maas mooy ramu jaam ñee la masa way kunu daal limaamu njiinoo njiin yaay ramu la masa way kun daal limaamu njiinoo njiin yaay ku la masa way kunu daal limaamu njiinoo njiin yaay ku la masa way kun taali maamu ndiinoo njiin yaay ramu jàngeew euh, laay maxtaar Seydi ak Alassane laay euh, ñooñu nga xam ni wax dëgg yàlla euh, suñuy soppe lañ suñuy xarit lañ ñu maanu ñu teey ñu dal ñu bëgg nit muy waa kër Seydina Issa Laay Ousmane ñu waxtaan tuuti ci carrière bi foo toll ci album bi ndax yàggul dara gis nañ la nga def sorti publique fekk si la lool sa koñ. waaw bi ñu sante yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam ñaan yàlla na yàlla fayal ñu ko fayal ñu njabootam gu tedd ga waaye di ñaanal suñu xalifa Seydi Mouhamadul Muxtaar ibnu ma Mandione yàlla bàyyi ko fi te may ko wér defal ko njabootu bàyyi lay gi topp si ginnaawam gépp di nuyu ak di ziar sama sëriñ sama xarit sama sopp sama baay Chérif nu ibnu si di Thiaw ñaan yàlla na yàlla sàmm ko aar ko taxaw ko waaye di ñaanal magam bi général Baye Ndiène ak mboolem njabootu Baye Laay nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci mission bi sëñ Moustapha ah album bi yàlla dogal na defoon nañ ay album mhm. def nañ ay clip waaye yàggul rek fan yi rek lañu ñu mujjee suñu anniversaire mhm. waaw foofu lañ toll daal ci mbir mi di ñaan yàlla nag mission bi àgg ndax commencé bi mm-hmm. album yi lu muy xaar. album bi génn na waaye ñu ngi ci waa ñu ngi waajal suñu ñeenteelu album. Mm-hmm. waaw incha allah appel bi di ñëw balaa appel bi di ñëw incha allah. incha allah Seydina Ousmane ñu xool euh, gisaguñ mu dem Grand Théâtre moom Sorano suma jubul nga mës a dem lan la ñuy xaar si Grand Théâtre wala mës ngaa dem Grand Théâtre. Euh, mosuñu dem sax Sorano. Mm. dem nañ fa nag ànd ak suñu mm. nekk Yoff di Omaro demoon nañ fa daawee fa naa gunge ko. Mhm. yàlla dogalit gars yi am nañ mébéti. Mhm. waaye ñun ndigal lañuy ñuy woy rek. Mhm. te comme amaguñu ndigal daal nañ ñu bàyyi suñu ruq boobu rek. ñuy jaayanteeg suñu borom. ñuy jaayanteeg suñu borom est-ce que tey jotul tamit ngeen dem euh, waxtaan ak kilifa yi ndax euh, xam nga euh, saawoo saa daanaka ñu bëri si way yi la lañuy jëngu te si way yi la ñuy yaakaar tey si way yi lañuy ñuy la ñuy est-ce que jotul tamit ñu dem diisoo ak kilifa yi waxtaan ak ñoom ñaan leen njekk ngeen dem Sorano wala da ngeen di toog di xaar rek ndax. waaw ñun ndigal rek la ñuy yowee. faaw ndigal am ndigal ndax lu ñuy def ndigal la ñuy wéyee. comme mhm. kilifa yi daal nee nañu nañu nañu nañu nañu xaar daal nekk ci liñ nekk ci ruq bi rek bàyyi ñu dégg waxu kilifa yi rek te rewul it fa ñu koy defee yàlla ñu siy sagar mhm. at mu jot. Mhm. ndax di ci profité sax di gërëm ak di ñaanal sama waa koñ. di maire yeeg paa yeeg xale yi ñëpp yàlla dogal na euh, ñoom fu ñu ma teg. di ma jàppale ci côté yëpp. waaye lépp ci ndigalu Chérif Mame mbay mu bàyyi Seydi Thiaw la. Mhm. ak njabootu Baye Laay gi ñuy wër foofu yëpp. Mhm. ñoom it bëgguñu ma génn sama waa koñ. Mhm. bëgguñu daal ma génn. dañ la faa bëgg a téere ba ci daal dinañ ma daal foofu daal ba ci kanam rek incha allah. bëgg la soppay si si Seydi allah. bis bu rëy ba yaay taxaw ñépp lu xew yàlla naan la yaa fi xew yaa di maam li maamu laay laa ilaha illa laaw Muhammadu Rasulullaay dem na del si yee salaat moo di maam li maamu laay waaw Muhammadu Rasulullah ndeysaan dem na del si yee salaat moo di maam li maamoon loxo ja kaw yow la la yaay nabi alaay yow Muhammadu Rasulullah ndeysaan dem na desi yee salaat moo di maam li maamu laay billaay yow la yaay Rasulullah Muhammad yow la yaay nabi yalaay Muhammad yow la yaay xabibalaay yaa di maam li maamu laay dem na desi yee salaat moo di maam li maamu laay bay laay yaay imaamul mahdi yow Muhammad xayru naas yooyu muhammad asin maasel gaaliyo yaa di maam e li maam yaa rasuulallah dem na doosi yee salaat moo di maam li maam bay laa ya baax yàlla moo la fal ngeen yow muhammad ngay toroxlu kenn du yow muhammad ku la weddi réer ba faw yaa di maam e li maam yaa rasuulallah dem na doosi yee salaat moo di maam li maam laa yabaax ko jubul la yàlla xool ko xulal du raw la ñunu yaay xabibu yaay xaliil yaa di maam li maamu laay dem na jël si yee salaat moo di maam li maamu bay laa yabaax bés bu rëy ba yaay taxaw ñëpp jaaxle naanu lu xew yàlla na la yaa fi xew yaa di maam li maamu laay na del si salaat moo di maam bay laa ya baax i ñëpp naan ma naan ko yaa kamaal salaat moo ya baax ko loo fi ma jox la ko sanga naan ko mën nga ko yaa di maam li maamu laay na del si yee salaat moo di maam li maamu bay laay ya baax yaa di xayru xalqi laay muhammad yaa di bàyyu roo laay yaa di maami abdu laay yaa di maam li maamu laay yee salaat moo di maam li sirifu Abdoulaye maam ja moo ne woonu azal bilaay Abdoulaye mooy jotal ndax watal ilaa si xel sibtu maam li maamu laay yee salaat yaa di maam li sirifu Abdoulaye maam ma joona xamub jërëm uf ko naan ko yow la doom muhammad yaay digum xayrul ana sibtu maam li maamulaay dem na del si yee tool bi aar na ko képp ku maandu na ko du ñu denc sàmm ko sibtu maam li maamulaay dem na del si ne bëgg na la abudulaay Abdoulaye soppanan la Abdoulaye dun la fàtte Abdoulaye siptu mam li maamulaay abadan dun la fàtte Abdoulaye abadan siptu mam abadan bàyyi abadan dun la fàtte Abdoulaye abadan siptu mam li maamulaay abadan dun la fàtte Abdoulaye abadan siptu mam abadan bàyyi abadan dun la fàtte Abdoulaye abadan bàyyi abadan ndeysaan Sëriñ Maxtaaru Lo Jibril Gaye Ibrahima li ma menga na ngeen ñemey seeni téere bàyyi laay ku doon laaj ku amee diina yoon ba feeru fa jàmma laay bàyyi diina ku ba feeru fa jàmma laay bàyyi laay soo ba feeñ na ku jamaana ngeen bëggu koo bañ yàlla wutal na ko seede sëriñ Maxtaar loo Jibril Gaye Ibrahima menga na ngeen yemeñ firi leen seeni téere bàyyi laay feeñ na ku doon laaj ku amee diina yonent ba feeru ba feeru fa jàmm laay bàyyi laay soo xiin waa nga xiina fa penk taw jàmmalaay fala yaaram ba feeñe waasaw am ngeen ngëneel yu rëy wayoo fag ngorog wakaam kanu yaari yoon nente nangu naan ko ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doo woote ku yàlla ku mu yónniwul ku ka fay doo ka yàlla yónni bàyyi libaas muy waare lay lay la la du ko jàkkataaya ku ko gis xam ne bàyyi libaas li mu nekk yàlla ko yónni ci réew mi ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doo woote ku yey borom ñaari leer borom ñaari leer loxo ñaari leer Mustafa yëngul borom borom ñaari leer maami Abdoulaay Jaw borom ñaari leer maami Duudulaay borom borom ñaari leer maami Mambay Laay borom ñaari leer leer ay borom ñaari leer ay na ngeen way Aliou Babacar eh, mbay saabaam yëgëm na bopp Amadou Maka xare Badar ba mu woote jiyaar ga Aliou feeñ na yaay faati wàcca na jur na buur jur saaba jur yonent isaaro walaay isaaro walaay isaaro walaay yàlla ko yónni moom politigul bu yónni nga woote ku mu yónni ah, macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Ousmane ah, li nga ñu bëggalee am na solo ah, dinañ ñëw tuuti incha allah rabbi si waa kër seex bu Kunta yi Sadi Faye mooy waaj léegi incha allah yéeg ñu tëjee kat ak kii tëjee nag day spécial si ñun ndax suñu xarit la suñu kilifa la suñu lépp la muy Hadji Mansour gay moo kàbbu Diop dinañ fi ñëw tamit bégal leen si Seydina Mohamed ndax ñoom ñaar dama bëgg ñu gàmmul ma fii gàmm gu neex goo xam Eh, kenn du ko fàtte waaye sëñ Ousseynou eh, eh, lan la soppe yi mën a la soppe di xaas yow soppe yi mhm. xëy na ñoom ñoo lan lañ mën a xaar si yow lan luñ mën a xaar si ñun lu dul rek di leen bëggal mhm. di leen bëggal saa su ne rek mhm. te damay faral di ñaan naan yàlla ñu yàlla defal fasaaxa ba lépp lu ñuy génnee suñu làmmiñ wi ci tagg Seydina Limaamu ak njabootam rek nay saf soppe yi leen neex loolu la ñaan saa su jot waaw di wax soppe yi daal li ñuy xaar ci ñun yàlla na ko yàlla di def si ñun muy lu ñu génnee rek woy ko rek ñoom bu ñu ko déggee rek am mbégte bi jërëjëf xam naa ni yaa ngi si yoon te boobaak léegi war ngaa dem bu yàgg duñ la fi téye mhm. dañuy bàyyi Sadikh préparé ñëw euh, yéeg incha allah rabbi Mara Thiam lay saare bu baax nekk fii si kër gi boobaak léegi mi ngi teewlu jot jotaay bi mook soxnaam euh, soxna Awa Mar ñu ngi leen bu baax ak ñaari tout tànk yi Ahmadou ak euh, sëñ Cheikh Ibrahima yow moom matale nga sama waayu bopp ji siyaar naa la bu bëree bëree bëri sëñ Ousmane looy tàggatoo di sant yàlla bu baax a baax di ko santaat nag mhm. waaye di ñaanal sama wayjur wu jigéen soxna ndeylaay yàlla bàyyi ko fi may ko wér guddal fanam aar ko sàmm ko bàyyi ko si kanamu njaboot gi di ñaanal sama sëriñ ginnaaw ma ñaanalee xalifa bi ak njaboot gi mu àndal di ay rakkam mhm. Seydi Mouhamadou Lamine Seydi Maam Libaas di ko ndokkeel waaye di ko ñaanal di fësal suñu mbégte ci démb ni ñu sagalee ci jullit tabaski ji mhm. ñaanal ko moom Seydi Maam Libaas yàlla yàlla may ko wér yàlla dëgëral ko yàlla kàntanal ko te noonu lañ ko ñaanalee magam ju Seydi Mouhamadul Amin waaye di wàcc seen rakk al imaam Mouhamadul Muxtaar ñaanal ko yàlla may ko wér sàmm ko aar ko waaye wàcc seeni njaboot su ma nee Seydina mu Seydina Maam Alassane Laay ak Seydina mu Serif Abdoulaye rek defe naa jotal na ñëpp waaye mu am si koo xam ni moom lañu yàlla cërale boo boole ñu ak moom ñu dëkk ak moom ñuy Serif Maam Mbay Laay ibnu Baay Seydi caw ñu ñaan yàlla bàyyi ko fi may ko wér sàmm ko aar ko di ñaanal mbooleem koo xam ne yaa ngi ñuy suivre rek ñu ngi lay ñaanal bu baax di la wax baal ñu àq yàlla ñu yàlla boole jéggal waaye di ñaanal sama waa koñ waa yow rawatina waa yoof hmm. gépp ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal axlu laay képp képp kuy wuyoo laay laay la ñu ngi lay ñaanal hmm. di la gërëm di la sant bu baax waaye di ñaanal ñi nga xamante ne tey ñoom la ma yàlla booleel ñu ànd ak ñoom hmm. tey ji defe naa ñeneen sax mënoon nañ ñëw. Mhm. waaye tey dañ bàyyi ñaari programme mhm. yoof maa ànd ak ki nga xam te mooy maa Ibra Laay mhm. li ñuy def nii mooñ ci njiit dàquñu ko lool. waaye oyofam rek la ànd ak ñun. di ñaanal ñaari éléments yi nga xam te ñu ngi ci ginnaaw. te waroon ñëw toog fii ànd ak ñun émission bi muy maam Ala mu ngi si ginnaaw ak euh, Papa Ndiaye. te ay soldats yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk lii. di ñaanal daal ñëpp soppey xarit yi bàyyiwuñu kenn kenn kenn di ñaanal ñëpp daal di la ñaanal yow Moustapha sama xarit sama waa ji mm-hmm. ñu ngi lay ñaanal bu baax yow it yàlla jàppale la di ñaanal télé bi mm-hmm. yàlla na ko yàlla yëkkati amiin waaw wala que que télé yu mag yi ñuy dégg yëpp. allahumma amiin di ñaanal directeur général bi caméraman yi ñëpp daal bàyyiwuñu kenn. allahumma amiin jërëjëf euh, sëñ Ousmane Laye jërëjëf ñuy siyaare suñu kilifa euh, sëriñ Assane Laye Makhtar nga xam ne mi ngi foofu sa yof di ñu suivre à l'instant moom it ñu koy siyaare bu baax suñu Assane suñu xarit la. suñu sag la suñu kilifa la suñu mm. féete la suñu mm. lépp la du yàgg chaque jour dañuy déggante man ak moom. te yëkkati ay koppar yu bëri di biir Zassine Assane moomu tamit. bu baax la ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di suñu xarit suñu soppe. Mm-hmm. waaye defe naa fi ñu bëgg a tëjee. Mm-hmm. Euh, du yàgg lool léegi ay fan ci ginnaaw rek. Mm-hmm. di nga gis yi ñuy waajal ñaanu si Seydina Mandione. te man defe naa euh, ñëpp ma xamee Seydina Mandione. ma woyoon ko yàlla defal ma ci xéewal dafa ma ci teraanga. ñuy ñaan nag lii nga doon tëjee si barke maam Ndione yàlla na ñu gunge. ba ñu teeri nga ci téeméer moo di mawlidu baat ma del la bàyyi laay feeñ mu daat di ko gëm ma wax tuuti gi taarixuk ma njoon mi ñu doy te doy limaam ak isa ak yàlla buur bi nu gëm Seydina ma njollaay dum du ne nga di téeméer moo di mawleedu baat ma delsee la bàyyi laay feeñ mu daa di ko gëm limaamu ne ñetti ruu ko njëkk gëm ba mu feeñee ruug Seydina ma njoon moo leen ñetteel ci li am Seydina Mandione Laye amoon na xaasi nanguk ñaan loolu kay dafa am jàngal jawaab ba sëriñ dun bind koon xam bur yàlla mas na ko woon mbootum xilaafam mu xëy bar ko bàyyi laay mu naan kaan loolu faw dana am te loolu yàlla da mu jël jant beeg weer weeg biddéew yëpp ramasse leen def si yam misetam mbooloo ma daraar ka te naan kaan yaa ñu doy mu ne leen ñun ñëpp naan toppi Isa moo di maag mi ma gëm يا ربنا بالمصطفى كرما جليت خير الورى سابا يا سيدي روي نيونا بدم سيدي لين ركم جمو ام بانيا جوم باتو باتي سيدي رو لاي كل واي ام غرم فجان بلاي غاي ولين بانيا جو غاي ولين بانيا جو ñëw na ba dem seeti leen rakam jamu am bañ a jom ba tuuba tey Seydina ma joonu ku ko gëm xamalooy xalaat bilaay am na di muy nete moom am na diine muy nete moom ngor ga mat na am na ngërëm xol ba yaana man na imaam am na ndam fi ay wala ay seydina ma njoonu ku ko gëm xawma looy xalaat bilaay moo di géej gu fees ba di fur moo di géej gu fees ba sifu bangal yaa ngi ziyaar yaw xayanal ko ziyaar moo di zul kilaay walaay ziyaar ànd mi gëm li maamu te gëm yow mi gëm gëm seydi roowalaay ma njoonu ku ko gëm mucc min alaay tey seydina ma njoonu ku ko gëm woote bi bu daañul doy day sax day ne sunu xol yi feeñu àndaandoo dëggal baay lay yoon nen bi woote bi bu daañul doy day sax day ne sunu xol ñu àndandoo dëggal baay lay yoon maam woote bi bu daañul doy day sax day ne sunu xol yi fee ñu àndandoo dëggal baay lay yoon nen be woote bi bu daañul doy day sax day ne sunu xol yi fee ñu àndandoo dëkkal ba ilaay yow la nu gëm sunu yaakaar gi xayru xalqillaay gëm nañu yaay Mustafa yaay sunu yoon maam ba ilaay am nanu ndam amati nanu ndam ñu xalul yoonu dëggal baay la yónneen fii la lépp ne ku fi ñëwul gëm dinga ñëw xewloo ngir dëggal waxi baay la yónneen me siyaare bu baax a baax ndéwénal bi am na solo eh, dañuy ñëw rek dugg Sadikh fay mu ñëw eh, barkeelu tamit si waa ko Cheikh Bou ñu tëjeek ak eh, oustaz ak oustaz Mansour Mansour Gaye nee naa leen kooku nga xam ni moo kàbbu jëpp war nañ fee bégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax a baax aja Sadikh bismillah